وإلى رب العالمين يبريني شوق ارتحالي إليها كان يبريني على أحسن تكويني مرقوط المفاهيد أو قد صار منعقد خاطما من بعد تكويني والحب كميل عقلا سليما بنت ثمانين بل أحلى ويسقيني لم الحب من مع آلام لكن يباليه أرباب مياديني asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu laqad kaana fii qasasihim ibratun li ulil albaab suñu boroom ne xam jaar-jaari mag ñi la dimbali aw askan ci ñu xam seen bopp moo tax asfiya indil leen émission ëttu cheikh baytul wilayaati ëttu cheikh di jàngale jaar-jaaru mag ñi muy émission bu ñu leen di dégtal ajjuma ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu maanaam 15 heures jàpp ci asfiya fm 97.3 ci dakaar 103.9 ca Tivaouane ngeen di ci ànd ak seen xarit seen mbokkum taalibe Mansour Seck bu ngeen bëggee ànd ak ñun ci émission bi mën ngeen a woote ci 88 628 00 78 mën ngeen ko seetaan en direct ci Facebook ak YouTube i wala ci www.asfiyahi.org Asfiyahi leeru Tiwaawan rabbi wa adamu baynal maa'i rabbi give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 ci 97 point 3 ci dakaar wala ci 103 point ci Tivaouane wala ima beneen support bu ñuy teewloo ci Asfiya yi moo xam YouTube Asfiya yi wala Facebook Asfiya yi wala ci beneen plateforme bu mën a doon ñu ngi leen di jox suñu loxo xol leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ki nek ci technique bi di Serigne mohammed ndoy ki nek ci kay bi sen bokkum talibé Mansour Sek. ñi ngi tambulé nuyo bi ci ki yalla jiital ci yoon wi muy Serigne Babacar si Mansour Al am li tariqa tijaniya di ko nuyu di ko wayam biko bi ko jox di ko ñaanal yalla sam ko ar ko te motti li yene bu mu am ci xadara maamam bi Seydi Haaji Maalik radiallahu taala anhu yàlla may ko kattan may ko sago may ko wér may ko xel mu sell ba mu eggale ko ci ak alhamdulillahi rabbil alamin di nuyu xayitam ki yor kàddoom di mbokkam di Seydil Haaji Malick si ñu gën ko miine ci suñu woyjur Sëriñ Pam Malick Sy di ko wàccee wàccuwaayam bi ko maamam wàccee di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko yàlla aar ko yàlla bàyyi ko sagoom may ko wér ba ko xelam ba mu mottali liggéey biñ ko yan ci ëttu maamam bi Seydil Hadji si Sy radiallahu taala anhu naka noonu la ñu nuyoo mbooleem ku aju ci famille Seydil Hadji Malick Sy yëpp moo xam góor ñi tey jigéen mag ak ndaw di leen ziyaara di leen jox suñu loxo xol di leen ñaanal yàlla yal na yàlla may leen wér may leen gudd fan ba li ñu yéene seen maam yàlla may ko may leen ñu àggale ko ak jàmm ni ko noonu la nuyoo mbooleem doomu soxna yi ñuy déglu ci waxtu wii te gannaaw ba ñu añee rek jël taal seen ataaya ñeen nañu yor seen livre ñeen nañu nekk ci liggéeyukaay yi ñeen nañuy sieste di teewlu 97 point 3 ci Dakar wala ci 103 point 9 ci Tivaouane wala boo wala boo beneen jumtuwaay bu ñuy teewloo ñu ngi leen di nuyu di leen safoo rawatina auditeurs yi nga xam ni fàtte nañ mbooleem beneen onde bu dul asiya yi fàtte nañ ko beneen chaine bu dul Asfiya fàtte nañ ko grâce ak seen seenu lislaam bi seen bi leen di bégal ci seenaa Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu chaîne bi leen di bégal ci Seydil Hadji Malick Sy radiallahu taala anhu waaye seen bi leen di bégal ci suñu maam alxaaji Omar Foutiyu Taal ak mbooleem ñu ñu njaboote yéen auditeurs yooyu ñu ngi leen di nuyu di leen jox suñu loxo xol di leen ndokkeel di leen safoo di yëg seenug jàppale di yëg seenug ñaan di yëg seenug ndimbal di leen ñaanal yàlla yal na yàlla fay leen lépp lu ngeen dugal ci asfiya yi moo xam xam-xam la moo xam ñaan la moo xam idée la moo xam ab dërëm la yal na yàlla gën leen koo yombal te gën koo ful te dugal ko ci seen misaanul xasanaat ci barke sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa daayira yi desul association yi desul sopp yi desul kenn ku nekk lu mu mi ngi koy def ñii ci Orange ne ñii ci feneen ak feneen ngir yàlla ak bëgg groupe bi avancé yàlla na ko bur yàlla avancé loo bakk Seydina Muhammad yi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dellusiwaat nag dellusiwaat nañ ak yéen ci seen émission ëttu Cheikh jaar jaari mag ñi bi ñu génn ñi ngi tënkoon suñu kàddu ci doon wax mag ñi nga xam ni ñoo nekkandoo woon ak Sidi Ahmada Tijaani radiyallahu taala anhu gannaaw ba ñu jeexalee Seydi Ali Harazim Barrada jaar ci Alin Tamasini tey jii ni ngeen ko dige woon ñu ngi war a wax ci Seydi Ibrahima Rayaahi kuy topp magi Sénégal yi rawatina Seydi El Hadji Malick Sy léeg-léeg jëmm ji mu cité ko ci ay téeréem kon nekkul ku ndaw Seydi El malik ci yiw Seydi El Hadji Malick ci fonk xam-xam Seydi El Hadji ci fonk doomu aadama Seydi El malik si ci bëgg nitu yàlla kooku làmmiñam boobu wala bigam bu tedd boobu ku mu yëkkati plumeam wax ci yow kooku ne tuuti lu yàggul dara suñu wéyjur ba suñu sëriñ ba di Seydi Ahmada tiijaan Sy Al Maktoum radiallahu taala anhu ci conférence ci làmmiñam wu tedd wa kii ñu bëgg a waxtaanee sëriñ Cheikh Diané ci turam mas wax ni bu fekkee juum nim ko waxee sama ko juumee ñu jéggal ma ko mën naa am ñu ko fekkee te déglu ko danañ ko mën a jubbandi ki seen xel mu sell waaye ñam wu tedd wa tudd na ko mu doon wax nga li Seyda Seydina Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu nit ñi ko xam ni Cheikh daf la yilif ci ñi koku nekkul ku ndaw mu ne ku yilif ku toll ñi toll ni koku nekkul ku ndaw mu ni koo xam ni mooy patron wu Aliou Harazim Barada ne kooku ndaw koo xam ni mooy patron wu Seydi Ibrahima Rayaahi ne kooku ndaw ci waxin wii la ko waxee koo xam ni alxaaji Omar yu Taal mi ngi sukk ci sa buntu néeg te amoon pouvoir wu taxawal tariixa kooku nekkul ku ndaw waaye koo xam ni Seydi Alxaaji Malick Si dañ ñi mooy sa njaboot kooku nekkul ku ndaw waaye koo xam ni dañ ñi Seex al Xalifa Abu Bakrin Si radiyallahu taala anhu mooy sa taalibe kooku ne kooku ndaw koo xam ne dañ ñi Alxaaji Abdul Aziz Dabaax mooy sa taalibe ne kooku ndaw et tant d'autres koo xam ne dañ ñi Serigne Cheikh Tidiane si Almaktoum Serigne Mansour si boroom daara ji cheikh suñu maam Serigne Moustapha si Jamil mooy sa taalibe ne kooku ndaw waaye ñi fi nekk yal na yàlla yokk seen wér koo xam ne dañ ñi sëriñ Babacar Sy Mansour al xalifatul aam li taifati tijaaniye mooy sa taalibe nekkooku ndaw koo xam ne dañ ni sëriñ Cheikh Tidiane Sy Mansour mooy sa taalibe ne kooku ndaw sëriñ Pape Maye Sy mooy sa taalibe ne ndaw kon li mu ci bëgg a wax rek mooy Seydi Ibrahima Rayaahi suñu mag yàlla yi nekk ci réew mi xamoon nañ ko lool te reconnaître woon taxawaayam lool reconnaître woon xam-xamam lool kooku nag lañ war a waxtaane kemtalaayel fukki minute juróom jàpp ñaar fukki minute te ñu ubbi téléphone yi insha allahu taala kooku mooy kan Seydi Ibrahima Rayaahi moom de lii wane njàmbaaram nooy na ci jaww joo xam ni Seydi Ahmada Tijaani doon na fa nooy kon loolu tegtale na ci ni tegtale na ci ni jàmbaar la woon jëmmula woon joo xam ni jonjoona ak saydi ahmada tijaani radiallahu taala anhu ndax loxoom tegu na ci loxo saydi ahmada tijaani radiallahu taala anhu kon loolu day dëggal ni moom it nekkul ko tuuti saydi ibrahima mi ngi tudd ibrahima ibnu abdil qadir ibnu saydi ibrahima الطرابلسي المحمودي ابن صالح ابن علي ابن سالم ابن أبي القاسم الرياحي التونسي moom de noonu mooy turam kon Ibrahima ibnu Abdul Qadir ibnu Seydi Ibrahima loolu mooy turam ñu koy dàkkantele Arrayaahi waaye nag dëkkoon Tunisie moom. mi ngi juddoo atum mille cent quatre-vingt tolloog mille sept cent kon boo seetloo da ngay xam ni Seydi Ahmadou Tidiane moo ko féete mag moom mu ngi judd mille cent quatre-vingt ci gàddaay gi Seydi Ahmadou Tidiane man naa fu mu yóbbu woon téléphone yi laaj moom kañ la gane àdduna dana am ku ni ma Seydi Ahmadu Tijaani ma ngi gën a àdduna mille cent quatre-vingt ci gàddaayu Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon moom moom uh, Sëriñ Seydi Ibrahima Rayaahi Seydi Ahmadu Tijaani moo ko woon mag waaye ala kulli haal ñoom ñaar gise nañ ndax Seydi Ahmadu Tijaani mi ngi gën a àdduna ci bu ngeen fàttalikoo mille sept seydi ibrahima rayahi mi ngi 1766 kon ndooy yaakaar naa seydi ahmad tidiani su ma la waxoon calculel ma ko léegi nga wax ma ñaata at la ko magi seydi ahmad tidiani comme dañoo xam atum tubaab la ñuy topp fii ci suñu réew francophonie yi seydi ahmad tidiani mi gëna aduna 1734 seydi ibrahima rayahi mi ngi gën 1766 kon ragal naa 30 ans yi 30 ans yi bu tegulit mat nako. Seydi Ahmad Tidiane mage nako ko kon may mat mat nako wayjur Seydi eh, Alioune Seydi Ibrahima rayahi fan la juddo mi ngi juddo dekk bu ñuy wax Testor Testor moma eh, est une ville est une ville eh, de nord-ouest de la Tunisie ville la boo xamante ni mi ngi nekk nord ouest ca dëkk bu ñuy wax Tunisie kon ci Afrique du Nord la Afrique du Nord la ndax Testor moom kat ñi jëkk dëkk bi mu juddoo ñi jëkk dugg Tunisie ñoom ca la ñu bokk ndeysaan dëkk boobu am nañu ko aan tuddee ci laa am nañu ko aan tuddee xaw ko déformer di ko tuddee ci ci cikila bu fekkee da nga da nga jël ci langue espagnole mooy al ushbul axdaru lu tax ñu tuddee ko cikila mooy ñax mu wert ndax dëkk boobu ña fa nekkoon te Seydi eh, Ibrahima Rayaahi juddoo fa ñoom ñi ngi jóge woon Andalus Andalus mooy Tunisie boo xoolee Tunisie islam am déggal Espagne Espagne andalus mooy Espagne de jullit ñi masoon nañ ko yor ba tax na ba ñu demee ba ñoom famille bëggoon am dund gu xaw nëtëx ci lañuy ñëw fekk fa ay euh, jaaliyaat yahudiya ñëw ànd fa ak ñoom nekk fa ak ñoom ngir seen dund mën na nëtëx tuuti ndax ñàkk goo xam ne dina xawoon dab moom nag. ci occasion boobu ci tuxu googu ñu fa tuxoo moom fale gane àdduna di 1766 nekk nord Tunisie fan la jànge moom Seydi Ibrahima Rayaahi mi ngi jànge xam-xam ak maarifa maarifa mooy gëstu yàlla ndax moom dinañ ci ñëw léegi mi ngi jëkk a bokk ci tariqa sazaliya ci la gën ci la jëkk a bokk tax mu génn ci danañ ko leeral ci kanam tuuti moom mi ngi jànge xam-xam ci ay mbooloo mi ay mbooloo juris yu jàng lool jàng fiq jàng luxal arabiya bokk na ca ci ñi mën a cité nii ñoo ko jàngal ku ñuy wax Hamza al Jabbaas jàngal na ko boroom xam-xam la nekkoon Tunisie bokk na ci ñu ko jàngal Saalix kawaas boroom xam-xam bu siiw la woon nekkoon professeur ci université Zeytoun jaamia Zeytouniya kooku Salih Kawash nekkoon na fa professeur moom moo bindu téere bu ñuy wax unwaanul arib amma nashaa bil bilaadi tunisiya an aalimin adibin Salih Kawash moo bind téere boobu nekkoon professeur ci université Zeytoun moom mi ngi génn àdduna 1804 muy Salih Kawash ku siiw la woon lool gëstukat yi nga xamante ni ñi ngi may déglu te histoire intéressé leen bu ñu bu ñu ko gëstoo mën nañ am jaar jaara moom Salih Kawash nekkul borom xam-xam bu ndaw moom bokk na ci ñiy formé Seydi Ali Seydi Ibrahima Rayahi wax naa Saaxi Kawaas mi génn àdduna 1804 kon ñoo ko jamono bokk na ci ñi mën a cité ci ay sëriñam ñu ku ñu wax euh, Mouhamadil Fassi ak ku ñu wax Omar Ibnul Qasim al Mahjoub ku siiw la bokk na ci ku ñuy wax Xasanu Sharif bokk na ci ku ñuy wax. Ahmad bu Qurays bokk na ci ñu ko jàngal waaye bokk na ci ñi gën a siiw te ñu jàngal ko te damu te mu cuube woon cuube woon ci xam-xamam lool ñu koy wax Ismaila at-Tamimi moom it jàngal na ko Ismaïla Tamimi mii bokkoon na ci ñi jàppale nitu yàlla yi nekkul woon tijaan waaye nekkoon na ci tarixa saadaliya moom Ismaïla at-Tamimi mii bokk na ci ñi nga xamante ni bindoon nañ lettre tontu wala boog bindoon nañ ab radd jëmale woon ko ci leetaru Muhammad ibnu Abdul Wahab bi mu jubale woon bi mu adressé woon ci al alamul islami moom mii moom mii di Ismaila at-Tamimi nekkoon sëriñu Ibrahima rayahi defoon na benn lettre bu siiw ci àdduna bi ndax ki ko def defloo woon mooy Hamouda Bacha Hamouda Bacha nekkoon ne kilifa biir Tunisie ndax Napoléon bokkoon na ci ñu fal waa ji ndeysaan waa ji kilifa la woon autorité tunisienne la woon ndeysaan mi ngi mujjee génn àdduna dañ ko mujj empoisonné muy Hamouda Bacha nee nañ nekkoon na ministre tunisien moom moo digaloon Ismaël Tamimi ni ko. nga fexe rad tontul Muhammad ibnu Abdul wahhab ku ne xamna ko gëss ko di bay dégg xam jëm ji Muhammad ibnu Abdul wahhab mom salafiste la wahabi la nekk arabia nekkoon arabiya saoudia mom Ismaïl Tamimi bindon lettre bu siiw ci aduna bi tudde woon lettre ba al minahul ilahiyatu fi tamsi dalala al wahabia ni la tuddee woon ni la tuddee woon lettre bi envoyé ko ci àdduna bi université yi jot ko média bi jot ko à l'époque kon nag Ismaïla at-Tamimi mi bokk na ci ñi jàngal Ibrahima Seydi Ibrahima ar-Rayaahi bokk na ci ñu ko jàngal al-Tahir ibn Mas'ud ñii rek laa ci mën a cité mais des na ñeneen ñu baree baree baree baree bare moom Seydi Ibrahima ar-Rayaahi ci gàttal dafa nekkoon Chazali doon werd werd Chazali mooy werdu ibnu Ataillah nekk ca nekk ca nekk ca ba yàlla def ba yàlla def Seydi Ali Harazim Barada bii di jàmbay Seydi Ahmad Tidiane ja yaakaar naa ja dafa waxoon naa fii jaar-jaaram Ali Harazim Barada mooy ki nga xam ni moo bind Jawahirul Maani bu Seydi Ahmad Tidiane mbooleem lettre Seydi Ahmad Tidiane mbooleem texam yi moo mbooleem waxam yi. سيدي مولم فتاوى يسيدي احمد تجاني دف ولا بوك اي تفسير اي ايات لا ولا كومنتير اي احاديث نبوي سيدي علي حرازم برادا موكو دان داجالي مو نيك جواهر معاني بي نيك اوفر بو ام سولو تي بير الطريقه التجانيه علي حرازم برادا مي مو نيو تونيزي ان 1802 ان 1802 لا نيو تونيزي بام نيو بي تونيزي دون گستو جي خم خم ñom ñaar ñu daje ci jami'a azaytun mok ibrahim ragahimi may waxtane tay bañu fa dajee yaakaar juñun nako fi bamay bamay bamay jangalé ali hazim barada ci yek yàllaam bañu ñu ci bir classe bi ndaysan ñu dend tok tok di xaar professeur bi di xaar di xaar gisaguñ ko ba xawon naaj seydi ali alazim barada ni wellet dan ni ngeen xamni teji professeur bi du ñew ta boba téléphone amul ta lu ñew biñu lettre diko envoyer nan ko nan len nan ñewul waye yalla yeglo nako mom sidi ali haran barada niko professeur bi du ñew wax ni professeur du ñew sidi ibrahim rayahi mi nak wax joju nek tan ci mom mu xaar ñu xaar xaar ba dig ba ci gi rombu professeur bi ñëwul mu xam ni nag Seydi Ali Harazim Barada mii yëg na yàlla ci la ànd ak moom biir këram ba ñu ba mu ko invité këram ba ñu demee ñoom ñaar mu yëg nii Seydi Ali Harazim Barada mii am na ci ku mu wékku ñu koy wax Seydi Ahmada Tidiane mu nettali ko nag ni Seydi Ahmada Tidiane sérieux mu nettali ko ak yëg yàllaam nettali ko xam-xamam nettali ko fi mu bàyyi koo waaye nag mu mu méngale moom comme jàngkat jàngkat moom da ngay interroger xam da ngay interroger sa xel Seydi Ibrahima Rayaahi daal ni kon de fii ma nekk ak tarixa bii nga ma jàngal am na lu ñu wuute te li ñu wuute li mu ci gën a intéressé mooy seen tarixa bii kat nekkul tarixa buy sukkandiku ci wax ay kéemtaan waaye day sukkandiku ci argumentation lépp lu wax koy argumenté lépp lu mu wax da koy argumenté ndeysaan ci la commencé na di gëstu Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu moom Seydi Seydi Ibrahima Rayaahi lool lool mu ngi nekk atum 1802 booba Seydi Alioune Seydi Ibrahima Rayaahi mi ngi am mi ngi am fanweeri at ak juróom-benn ba mu Seydi Ali Ali Ali Haazim yàgg lool ca kër ga mujj gi. Seydi Ibrahima Rayaahi tàllal ñaari loxoom ni ko jox ma a tariqa a tijaaniya daal di teg Chazeli gi mu doon weer ndax lan booba ah, ndeysaan kontaan na ci tariqa bi kontaan ci Ali Haazim Barada waaye kontaan ci Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu moo tax gis nga moo tax doomu aadama ala kulli xaal jàngal rek njàng bokk na ci lay yëgloo yàlla njàng xam-xam bokk na ci liy tax. ngay distinguer dëgg ak neen njàng xam-xam bokk na ci liy tax nga mën a def muqaarana mooy nga mën a lënkale lan moo gën ak lan moo gënul ndeysaan moo tax Serigne Cheikh Ahmad Tidiane si Al Maktoum radiyallahu taala anhu ma sa wax ci benn waxtaan ni sama turandoo ku ragaloon a am la sama turandoo ku ragaloon a am la ñu ne ko lan mooy am mu ne am mooy koo xam ni bu ñee ko xulool mu xuloo buñ ñee ko weranteel mu werante bu ñee ko xeexal mu xeex waaye su ñee ko jàngal mu lànk gis nga kon Seydi Ahmad Tidiane al Maktoum radiallahu taala anhu xamoon na dayoo xam-xam xamoon na gëdd xam-xam moo tax mu bind ni af naytu asbaabal xayaati dirasatan wa balawtu kulla wasaili irfaani dafa jàng ba xëy-xëy yàlla yóbbu ko ci boroomam ndooy da nga may ubbi téléphone yi en daa ñu eggale waxtaan yi waaye nga ubbi ñu téléphone yi ci 88 628 00 78 88 628 00 78 kon mbokk mi may déglu na nga xam ni Seydi Ibrahima Rayyahi ci ba muy jàng dajeek Aliou Hazim Barrada Barrada moom waa Maroc la jóge Maroc ñëw fekk Tunisie ñu daje ci jaamia Zeytoun fa lañ xamante mu tàllal ñaay loxo moom Seydi Ibrahima Rayaahi ni ko jox ma werd mu jox ko werd ci 1802 wax naa la na ne boobu mi ngi am fanweeri at ak juróom-benn kon yow may déglu na nga xam ni Seydi Ibrahima Rayaahi ba muy jël werd wi fanweeri at ak juróom-benn la am kon nag euh, layu di lay taxaw teg lay ni naa bàyyi ba am 60 ans. doo doogu jël tariixa bi war naa bàyyi ba am 40 ans doogu jël tariixa bi war naa bàyyi ba bi jaaw génn doogu jël tariixa bi déedéet na nga ko jël bi nga amee doole nanga nga ko jël bi bànneex di màmm bëgg laa jaamuloo bëgg sa bakkan sa bakkan bëgg laa jaamuloo sa bopp nga lànk jël a ak at tijaaniya commencé jaamu yàlla kon moom ba muy jël werd wi waxal ni mi ngi nekk étudiant di jàng léegi nag étudiant yi ñaare ko waxal ni ko jëla werd wi daan léegi naa bàyyi ba am nangam ci ay diplôme naa bàyyi ba takk soxna naa bàyyi ba samp kër doog jël werd déedéet da ngay fexe jamono ji nga xam ni yaa ngi am dix-huit ans wala jamono ji nga xam ni yaa ngi am vingt ans jàpp vingt-cinq ans bànneexu àdduna bëgg laa màmmuloo bànneexu jigéen bëgg laa màmmuloo alal bëgg laa màbb màmmuloo jëlal ah dana bi commencé exercer ndax dana la dimbali ci yu bare bare bare kon mom Seyyid ibrahim Rayaahi mi ngi jël tarixa bi ci bam amé amee at ak juróom ben ñu dem ba 1800 huit cent kon ñaari at après ba mu jëlee werd wi dajeek Ali Harazim Barrada ndeysaan gënaaw ñaari at ben xif xif am Tunisie xiif gu méttee méttee méttee métti xiif gu metti ndeysaan waaye fekk na booba mi ngi nekk jàngkat fekk na mi ngi am xam-xam waaye fekk na mu bokk ci ñu ci point focal yi ñuy limal Seydi Ahmad Tidiane yi moom mu bokk ci ndax point focal yi gën a fees dañ lim ni ñi doon jàppale Seydi Ahmad Tidiane yi ci jamono jii Aliou Harazim boo demee phase fekk fa Aliou Harazim Barada boo demee Algérie ca jënubu Algérie mooy sud Algérie boo demee fekk fa Alioune Tamassini waaye boo ñëwee Tunisie fekk fa Seydi Ibrahima Rayahi ñetti ñii ñoo nekkoon point focalu Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu Ali Harazim Barada Alioune Tamassini ak Seydi Ibrahima Rayahi 88 628

ndeysaan Hamouda Bacha daa di ñëw ci jaamia Zeytoun xool étudiants yi jàng waaye mu gis ni Seydi Ibrahima Rayaahi la ëpp yaakaar ci moom ndax am na le verbe bu mu mën a bu mu mën a waxeek bu mën a waxeek Mawlaaya Souleymane bu Maroc mu jël décret yabal Seydi Alin Tamasini Seydi Ibrahima Rayaahi mu yebal ko Maroc ngir mu war a dajeek Mawlaaya Souleymane Mawlaaya Souleymane ngeen fàttaliku ni moom bokkoon na ci ñu jël tariixa tijaan ya ndax wóllëre Seydi Ahmad Tijaan yi radiyallahu taala anhu la woon mu dem daye jàkk moom waaye ba mu demee ba mu demee Maroc avant muy wax li ko yëkkati mu lu jëm ci côté négociation mu fawadaat ci wàllu ci wàllu euh, wut dund ak euh, waxtaan ak ñaari waxtaane ña mbiru ñaari réew yi ma nga tàmbalee dem ca majaalisul ilmi ya nekk biir Maroc di waxtaane xam-xam di waxtaane xam-xam ba information ay doneem Mawlaay Souleymane jot ko jot ay doneem nii am na benn ndaw lu jóge Tunisie ñu koy wax Ibrahima Rayaahi mu am xam-xam lool ndax booba li umpante bariwul woon na jamono jooy jamono xam-xam la woon ñaare te booba nit ñi bareeguñu woon ku dëkk ca dugg ci ab dëkk nekk étranger rek mën nañ laa xàmmee ndeysaan ñuy waxtaanee jàng gi mu jàng ak dégg gi mu dégg ak yiw gi mu yiw ndeysaan si Mawlaay Souleymane mujj gi Olivier Seydi Ibrahima Rayahi ñaan audience waaye Mawlaay Souleymane moom moo ko ñaan audience pour mu accorder ko ko. allahu akbar kon legi mbir mu soti waye mu ni ko kat nag ma may ndax dafa am jëm juñuy wax sayyidi ahmadu tijaani radiyallahu taala anhu moom la bëgg dajel ndaysan mom moom bëgg dajel da dem ci kërëm fekk fa sayyidi ahmadu tijaani sayyidi ahmadu tijaani teral ko jox ko teranga waxtaan ak moom ci walu xam-xam waxtaan ak ci walu xam-xam Seydi Ibrahima Rayaahi xel mi rëy na waaye yëg ni fonk na xam-xam waaye ni xam-xam bi tollu yiw gi ëpp na noonu mu yëkkati waa tariixa bi jox ko ni ko xal ah, yu xaraasim joxoon na la waaye nag man maa lay joxaat daal mu tàllal ñaay loxoom mu jox ko tariixa bi yamu ca waaye mu bind ijaaza jox ko kon gis nga booba am na ci moom yaakaar ba mu jëlee tariixa bi ci Seydi Ahmed Tidiane ba noppi yëkk ni li ko Seydi Ali Harazim Barada waxoon ci moom ci Seydi Ahmed Tidiane yi fekk na fi lu ko raw ndeysaan mu doog a mu doog a déplacé wu daay dem nag fekki Mawlaaye Souleymane dem waxtaan ak moom waxtaan ak moom pour ñu def ay négociation ngir mën a signer ay accord ci lu jëm ci wàllu wàllu wàllu dund noonu la ko doxale ba mu dellusiwaat biir Tunisie buuru Tunisie ministre bi nga xamante ni moo yoroon wàllu googu di Hamouda Bacha kontaan lool ndeysaan kontaan lool ah daa yëkkati décret ni ko dama lay fal nga yor wàllu diine ji lépp loo xamante ni ah, mufti bu yor wàllu Tunisie yow yaa koy yor mooy wàllu atte ci wàllu lislaam yow laa koy jox fekk booba Ismaïla at-Tamimi moo ko yoroon ndeysaan waaye mu wax kàddu gi bañ ko falee loolu décret bi mu wax kàddu gi moom moom euh, moom euh, Seydi Ibrahima Rayaahi daan ni ayufta wa malikun fil madina moo ndax def na joxe fatwa ci dëkk Tunisie bii te ku tolloog Maalik ci xam-xam di fi yeewoo ma de duma ko def ndax booba Ismaïl at mii moo yoroon lépp lu jëm ci wàllu diine ci biir Tunisie mu ni man fii moom mi ngi noyyi duma ko nangoo yor ndeysaan kon kii ormal ne sëriñam kii ormal na ki ko forme waaye kii xam na gëdd ki la jàngal ba mu demee ba atum vingt 1826 moom Seydi Ibrahima Rayaahi daal di waaj pour dem Makka Hamouda Bacha mi moo ko jàppale mu dem Makka dugg Makka ba mu demee ba ci rawdu Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam pour wax la ni la moom nekkoon na kuy safoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu taxawee ci xabru yonent bi baat yi may wax la fa wax. طلبت عليك يا ربي دوام رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا تلبيس ليسان طلبت عليك يا ربي دوام رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا تلبيس يلا من يلا من لي نيان من لي نيان يلا بما تقالي كوتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم yàlla boo ma may yàlla nag ma may may saxoo di gis yonent bi ci lu amul benn werante ci lu amul benn lënt-lënt kon moom yàgg naa yëg yàlla moom Seydi Ibrahima Rayaahi ndeysaan ba mu wàññeekoo nag ba mu ñëwee la fekk la fekk Ismaila at-Tamimi muy sëriñam ba ndeysaan génn àdduna ba mu génnee àdduna nag ci la nango jël nak nek mufti yi tunisie ñu fal ko mu nek mufti tunisie moy lepp lo xamni até la wala lepp lo xamni njangale la mom moko yor ci bir dekk ba ben bi top moji ni euh hamouda basha ñuko dama ci tégal da ngay nek imam ratib ndax boba tunisie pour nga nekk imam ratib ñi ngi ko daan xamee ci nga jiite grande mosquée de Tunisie boo ko jiitee rek yow yaay imaamu ratib bi comme fii ci dakaar fii ñu ni euh, grande mosquée de dakaar ku koy jiite yow yaay imam ratib bi booba jamono jooju noonu nañ daan wax ni képp koo xamante ni euh, yor nga jumaa yi Tunisie ji grande mosquée de Tunis yaay nekk imaamu yow lañuy tuddee imaamu ratib bi yëkkati salaire jox ko ndeysaan moom mu boole kon ñu ni moom euh, mu jëkk a boole nekk nekk mufti ci mazhab Malik ci biir Tunisie waaye boole ci it nekk imaamu ratib biir Tunisie moom da ko boole ndax Ismaïl at mii mi jàngaloon ko boolewul woon ñaari waaye ba mu ñëwee déggam ak niteem ak euh, maaduteem ak xam-xamam mm, waa autorité tunisienne yi dañoo jël décret daal di boole ñaari xam-xam yi ñaari ñaari institution yi jox ko ko loolu benn la bokk na ci njàmbaaram te ñu tudd ko ñu ñun jamono jooju riwaaya chafawiya moo ëppoon doole ci jaamia zeytoniya moo ji ni jàngale xam-xam ma tradition orale moo gënoon a bari nangam nee na diw nee na diw nee na diw nee na waaye ba mu ñëwee nag ci la commencé nag euh, parfaire wàllu xam-xamu bind ci jaamia Zaytuniya kooku bokk na ci li nga xamante ci ci ñi nga xamante ni liggéey na lu mel noonu waaye moom Ibrahima Rayaahi bokk na ci njàmbaaram li ma waxoon keroog ni njàmbaaram. ay wax rek du ko feeñal moom bind na feeñal boppam ndax nit kii bu fekkee ci wax rek nga nga yem soo génnee àdduna ñu fàtte la la nga wax bu jamono yàggee tuuti léegi nopp yi fàtte ko waaye moom de bind na moom Seydi Ibrahima Rayaahi kon ku dugg ci 88 628 00 78 di nga mën ànd ak ñun ci émission bi incha allahu taala 88 628 00 78 ma ne moom bind na te lim bind nekk na téere yu siiw moom Seydi Ibrahima Rayaahi bokk na ci téere yi nga xamante ni siiw na lool te nekkoon téere buy défendre tariixa bi ñu tudde ko Muridu Sawa Sawaarim wal asinna fi raddi ala man akhraja al-sheikh Tijani an dairati ahli sunnati mom bin tere bobu ne jaastu ju ñaw a ngi nii jaastu ju ñu bocci ngir dello ngir tontu ci ki bëgg a sayyidi ahmad Tijani ci ñoñ sunna kon tere bobu mom moko bind nek tere bu siiw kadalika mom sayyidi ibrahim Riyahi amna diwan amna diwan bo xamanteni dañu ni dañoo toftale diwaan bi ci lettre alphabet arab diwanu shi'rin murattabin ala xurufil hijaiyati diwan bo xamni ni bo xamanteni xamante bi ay way mo ci nek way حروف حرف الالف alif way na ci xarful baa way na ci ba xarful yaa kon yooyu yëpp موما بويت لون وايا كذلك نحوي لون موي لغوي لون ندخ دفن بين منظومة تي منظومة أجرومية تعرف نكو تي علم النحو موميت دفن الملنون كذلك دفن بين تيري بنتو دي حاشية على الفاكهاني كذلك أسي موميت بنكو سيدي إبراهيم الرياحي كون moom jàmbaar la woon ci wàllu xam-xam kadalika jàmbaar la woon ci madhabul malik madhab malik mboolem lu ko daan songu mboolem lu ko daan song jugee bitim réew wara dugg Tunisie moom mooy taxaw défendre ko kon kooku moom it euh, ngënk la woon ci madhab malik yi madhabul malik niroo ci ak Seydi Ahmada Tijaani kadaalika it bokkoon na ci liñ ko bàkke ni moom moo jëkk a dugal at ak at ya ci Tunisie kon kooku it kooku it euh, mat na bàyyi xel ci jaar-jaaram waaye mbooleem mbooleem euh, lu daan jugee ci euh, turki ti ndax ba jamono jooju jamono jooju al osmaaniyuun ñoo nekkoon biir turki daan nañ dugal ay jaxas-jaxas biir Tunisie waaye moom malgré li nekkoon nekkoon nitu diine mbooleem ay mufawadaat yuñ daan doxal diggante Tunisie ak ak turki daan na ci liggéey liggéey bu rëy kon loolu bokkoon na ci njàmbaaram ñaareelu ña ñett ñaareelu njàmbaar gi nga xam ni Ah, majaa bi amoon dama junj ko léegi biir Tunisie ba ñu demee ba war a wut ku négocier ak Mawlaaya Souleymane bi nekk euh, Maroc moom moo demoon négocier ko te boobu mi ngi nekk étudiant kon loolu mat naa bàyyi xel Mahmoud Khan Mahmoud Khan bi nekkoon biir Turquie aussi miinoon na ko lool daan ko daan ko bàyyi bàyyi daan ko bàyyi xel ba ba dariba yi mu tegoon. yi mu tegoon ci diggante Tunisie ak euh, Turquie moom Mahmoud Khan da ko mujj allégé lool ndax grâce ak euh, Seydi Ibrahima Rayahi kon moom kon moom ku rëy la woon moom ku ñu bàyyi woon xel la non seulement ci wàllu tarixa bi non seulement ci wàllu islam bi waaye ci côté social daan na ci liggéey lu bari lool kooku nag buñ ñee taalibe Seydi Ahmada Tidiane yi kooku neex naa neex naa nangu moom it ñaareel bi Seydi Ahmad Baye imaam Ahmad Baye nekkoon autorité tunisienne ba fa nekkee tooñaange yi mu daan tooñ doonte léeg-léeg décret moo ko daan fal moom moom Ibrahima Riyaahi daawul nangu ci Ahmad Baye li mu daan def daan taxaw taxawaayu taxaw taxawaayu njàmbaar taxaw taxawaayu ku dëgër. daan taxaw di défendre penc mi daan défendre boroom xam-xam yi waaye daan défendre nitu tarixa yi nekk foofu ndeysaan waaye Seydi eh, Aliou Tamasin Seydi eh, Ibrahima yi am na douleur bu metti bu ko dal te loolu génn àddunaam ci la jaare ndax doomam bu ñu wax Mouhamad Tayyib moom la choléra jàpp benn peste bu duggoon Tunisie moo en 1849, huit cent quarante neuf moo fa dugg jëkk laal doomam ñu koy wax Mouhamad Tayyib Mouhamad Tayyib daal di génn àdduna ndeysaan moom génn àdduna mu yóbbu mu def bidd bu rëy rëy rëy ci wàllam mu def khutba, def ben sermon bu rëy moom euh, Seydi Ibrahima Rayaahi daal di tàggee daal di tàgge boppam def xutba gi ci biir jàkka ji ci la tàgge Bopam, ni. man di sama doom ji da ngeen xam ni yóbbu na lu réeréer ci man da ngeen xam ni balaa yàgg danaa ko toppi aywa ah, li ñu ànd ak moom ndooy bisimilah salaamaaleykum. waaw salaam. waaw koy sëriñ bi na ngeen def. ñu ngi fii de. sëriñ bi na ngeen def kooku nu nu tudd ak fooy woote. Ah, man Haruna Ba laa tudd maa ngi wootee ci ci Dakar ci Fass Mbaw. ah Haruna Ba ci Kayar. Fass Mbaw. Fass Mbaw. waaw mm-hmm. ah, ba ñu ngi lay ziyaara. yaa ngi sant. yaa ngi ànd ak ñun ci émission ëttu Cheikh fii ci Asfiya yi. waaw. ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay sant bu baax a baax. jërëjëf. jërëjëf. baarakalaa sëñ Ibrahima sëñ Haruna. Eh, sant naa leen rek xam xam nga wolof bi moo moo normalul quoi. waaw ah, ne xaw na sedd ñu ngi lay dégg baax de. <laughs> wolof bi moo leerul quoi. pulaar bi moo gën a leer ci wolof bi ah waaw al olof bi de ñu ngi lay dégg baax de yow de yow kay olof nga <laughs> déedéet man waxum olof bi waa ñu ngi lay euh, yaa ngi dafa dem dafa dem ndooy kon seen Haroun ba ñu ngi lay gërëm baax a baax di la sant nee na nee na olof bi sëccul waaye wax dëgg yàlla li nga wax de set na ñu mm-hmm, ñu ngi lay gërëm ci sa ànd ak euh, asuyaay bu ko defee 88 628 00 78 Mouhamadou ndoy ko dugg rek nga dugal ko ci kemtulaayal ñetti minute jàpp ñeenti minute 88 628 00 78 ñu ziarante ci ngënki Seydi Ahmadou Tidiane yi nga xam ni ñoo nekkoon ci wàllam doon noyyee ndox moom te tariixa bu egg fii ci suñu loxo grâce ak seen taxawaay incha allah taala 88. 628 0078 kon Seyd Ahmed Tidiane deugal mom uh, Seyd Ibrahima Rayaahi ba dom joju genné aduna ñu koy wax Mouhamad Tayyib ci benn peste bu wax choléra ci en 1849 ndeysaan ci la defal marsiya daal di xutba xutba ci jumaa ji mooy grande mosquée de Tunisie de Tunis fa di ni a sama dom ji kat na ngeen xam ne yóbbu na lu rëy rëy ci man wallaay waaye nag eh, kon avant at mi jeex at mi ci duggaat ko kay 1850 ndeysaan ci weeru koor 7 août 1850 moom seydi Ibrahim rayahi même maladie daal di koy jàpp muy febaru kolera ndax jamono jooju medicine avancé wul won te it saan dund gi it la yàlla xam doyoon na waaye ci dogal yàlla mu toppi doomam jooju ñu booy leen suul foofu ci zaawiyam bi nekk Tunisie zaawiyam boobu nag nekk na zaawiya bu siiw lool ndax ndax ndeysaan autorités yi tunisiennes yi bañ ñëwee dañ koo gën a taaral tawax ko tabax ko bu baax a baax a baax ndax Ahmad Baye moo ko tabaxaat am mille huit cent cinquante sept cinquante quatre ba ñu demee ba en mille huit cent soixante dix ku ñuy wax euh, Mouhamad Sadiq bay moo ñëw gën ko gën ko taaralaat gën ko may prospérité ba tey jii zawiyam boobu nekk na maalam taarixi ba Tunisie ku fay dem ñaare boo laajtee zaawiya Seydi Ibrahim Rayahi ñu yóbbu la fa mu nekk zawiya bu siiw ndax grâce ak euh, taxawaayam kon moom mi ngi génn àdduna en 1850 booba Seydi Hadji malik si ci yenn riwaaye yi gëneegul àdduna ndax bu fekkee da nga jël Seydi Hadji malik si ni mi ngi gën a àdduna nga ànd ci ñi wax ni mi ngi mi ngi mi ngi 1855 ci li bindkat yi bind kon da ngay wax ni ba Seydi Ibrahima Rayaahi génne àdduna ba ñu teg ci juróomi at ci la Seydi El Hadji Malick si génne àdduna fii ci Sénégal kon ñu jàpp ko baax a baax Seydi Ibrahima Rayaahi ngënk la woon Seydi Ahmad Tijaani nekkoon bindkat nekkoon jàmbaar ci nekkoon jàmbaar ci mazhab Maliki mazhabul malik nekkoon ci jàmbaar nekkoon nekkoon jàmbaar ci lislaam bi waaye nag nekkoon jàmbaar ci a tariqa a tijaaniya Seydi Ali Harazim Barada jox ko werd ba mu amee trente six ans ci Tunisie mu delluwaat euh, Maroc Seydi Ahmad Tijaani joxaat ko tariqa bi waaye nag daat koy ijaazaal kooku mooy Seydi Ibrahima Rayaahi ñu ngi gërëm mboolem ñu àndoon ñun ci émission bi rawatina suñu auditeurs yi nga xamante ni duñu tàyyi duñu bayyi duñu yokkat ci asiya yi ñu leen sant bu baax baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla li ñu ñaanal suñu bopp mooy yàlla may ñu njub lu ñu may yàlla nañu may njub lu ñu xañ la ñu yàlla nañu may njub ñi ànd ak euh, suñu benn auditrice ñu koy wax euh, soxna astu di doomu bàyyi du dia jot message am macha allah di ànd ak ñun ci émission bi di ànd ak euh, di sant suñu mbokk haruna ba bi nga xamante ni duggoon na léegi na naa déficit technique motax dugu euh, ñi dugg exi wuñu waye ñi jémon dugg te exi wuñu ñu lay sant leen gërëm ñi amoon yéene ñëw te ñëwuñu ñu lay sant leen gërëm baax baax baax di leen fàttali bis bu nekk rek euh, orange euh, mona yi nga xamante ni moom ngeen doon jàppale asuyaa yi di ci def seen dërëm ñi dugaloon ñu lay sant leen gërëm di waat seen taxawaay ak ñun bu baax baax na yàlla fay leen di nuyu suñu naataango alxaaji abu yàlla ku caaw bu baax a baax di muy safoo as yaay guddeeg bëccëg ñaare fu muy tuddee Tiwaawan wala muy tudd lu aju ci Tiwaawan rek mi ngi bàyyi xel asu yaay di safoo suñu jëmu ji bu ji waaye nit ñi safoo ñu ngi lay safoo lu ëpp loolu di la gërëm baax a baax ñu gën koo xam ci Kouthia allahuma stur awratina wa amin rawatina naa ma ahamana waxin na charama taxawaf الله إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يعني يلا مسلنو muccal te والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مكتوم عاليا أغطى الإله بلا ريب وتمييز